doyen Agne. waaw journaux yi. li ñu li ci gën a fës gis nga ko mu ngoog. yow lan nga ci gën a capté wala lan moo la ci gën a intéressé. man li mu ci gën a intéressé mooy euh, l'affaire Sonko. Hmm. parce que nag àddina boo ci nekkee booy wax ci nit. da ngay wax lu leer a leer am preuve yooyu wane ne kii li ma wax am na hmm. voilà man loolu je je je m'attendais à ça ah sur Sonko ça ne me surprend kon de bëri nga ci morom. waaw man de ça ne me surprend pas parce que je savais bien que nit su ma tuumaalee Abbas ne Abbas moo jël sama big te aw ma benn preuve. bu ma ko wanee ne Abbas moo jël sama big wax nañ ma daan. dañ lay daan c'est normal. d'accord moi ça ne surprend pas. d'accord mais jël na sama big jëlu sama big rek warul bokk ci élection yi loolu tamit jaadu na. ah je ne sais pas de toute façon euh, euh, man je ne connais pas le droit. parce que man defuma droit jànguma droit mais li ma bëgg xam daal nit bu tooñee dañu koy daal et dans cette dans ce cadre là j' estime que Sonko dafa tooñ daam maa mbay ña. waaw man xaw ma maa mbay ña de xaw ma maa mbay ña xaw ma Sonko. non non yooyu sax amul solo c'est juste da ngay am nga droit commentaire. voilà moi nga da commentaire am nga ci droit. Euh,